mbokki safin bi 7TV maa ngi bëggeen ñëpp ziar ñëpp di ñëw gën seen xochoot ak dërmu gën a fas yéene journée tey bi tombé le dimanche 18 juin dañu koy commencé foofu sa Real Madrid bi nga xam ne nag depuis bu Kylian Mbappé xamale waa Paris Saint-Germain na du prolongé contrat am mooy yaatu option bi nga xam ne moom la war a dolli te waa Paris Saint-Germain xamal nañ ko ne su prolongé wul dañ koy yeteg si marché pour jaay ko waa Real nag ñu ngi bàyyi xel situation Kylian Mbappé ak Paris Saint-Germain bu baax te duñu defagum nag benn jéego tant que leeru leen ne Kylian Mbappé mi ngi si marché des transferts te Paris Saint-Germain teg na si prix kon na fu mu toll nag waa Real ñu ngi toog di xaar situation Kylian Mbappé ak Paris Saint-Germain lu ko may nag dinañ xaar ba 2024 mu jeexal contrat am ngir nag ñu mun ko jënd librement fu mu toll nii nag Real Madrid situation Kylian Mbappé ñu ngi koy bàyyi xel te bëgg nañ ko recruter si mercato bii nii fekkee nag Paris saint da koy teg si marché bi fekkee nag dara leeru si dañ bàyyi ba ngir mu nag jéem ko signer librement. ba léegi ak Real Madrid Florentino Pérez di président Real moom nag bëgg foofu sa Real Madrid waaye naka du fa dellu si comme entraîneur dañ ko dañ a boole naka si euh, direction Real bi ngeen naka mu doon fa conseiller Real Madrid la des ba léegi waa Real fu mu toll nii naka ñu ngi war attaquant te kii di euh, Karim Adeyemi bu Borussia yi mu toll nii naka waa Real ñu euh, ak ay agent mooy te bëgg nañ ko signé si mercato bu ñu nekk nii Dani Ceballos dina prolonger contrat am Real Madrid muy ñettaatu contrat yi nga ne Real moom la ko proposé.

Monchi bi nga xam ne nag moo nekk moo nekkoon directeur sportif bu FC Séville moom nag jóge na fa dina dem Sénégal ak club bi di Aston Villa ngir nag nekk seen directeur sportif foofu sa Angleterre la jàll club bi di Aston Villa Aston Villa fu mu toll nii nag nañu si négociation yi ak kii di euh, Alex Oxlade-Chamberlain nekkoon foofu sa Liverpool. foofu sa Angleterre ba léegi Manchester United bi nga xam ne nag waa Qatar jënd nañ leen lu yàggul la dara ñoom daal li nga ne nag bëgguñu xaar ba 2024 léegi la ñu bëgg a di yàq na wax bi kon na fekkee nag après changement technique marché bi ñoom dinañ dafa jéego ñu mën ngir nag am ko Victor Osimhen jamono ñu toll nii euh, Manchester United la gën a jege si euh, club yi yëpp euh, moom pare na pour a foofu sax Manchester United Manchester United sori si négociation si club bi di Manchester City la ñuy jàll ñoom tamit sori nañu si négociation pour joueur bi di Mateo Kovacic nekk milieu foofu sa Chelsea ak kii di Joško Gvardiol bi nag défenseur la foofu sa Leipzig ba waxtaan ba déggoo am na si diggante défenseur bi di Gvardiol ba léegi ak Manchester City kii di Kyle Walker mën naa jóge si club bi di City si mercato bu ñu nekk ni kon fu mu toll nii fa la gën a jege te club bi di Bayern Munich foofu sa Allemagne soxla nañ ko te fu mu toll ñu ngi négocier ak moom. moom nag mooy entraîneur bu bees club bi di euh, Leicester City foofu sa Angleterre. Tottenham dinañ waxtaan ak Barcelone si fan yii di ngir nag mën a am kii di euh, Clément Lenglet bi nga xam de près maanaam daal amuñu ko waxaloon foofu sa Tottenham dafa jeex ba ñu delloo ko foofu sa Barcelone waaye nag euh, waa Tottenham bëgguñoo ñàkk jour bi dinañ waxtaan ak Barcelone si fan yii di ñëw ngir nag mën am kii euh, doomu Suède bi ñetti club yi di euh, Tottenham West Ham ak Brighton ñoom la ko bëgg a signé Chelsea bi di Conor Gallagher waaye naka waa Chelsea dañoo bëgg dugal Conor ak Gallagher si négociation yi ngir naka mun am joueur Brighton bi di Moisés Caicedo Kai Havertz nangu na offre bu nga xam ne nag Arsenal moom la ko proposé woon kon fu mu toll nii nag euh, déggoo na ak Arsenal Chelsea la war a négocier officiel kii di euh, Mahmoud Daoud jóge na si euh, club bi di Borussia Dortmund bi nga xam ne nag contrat am jeex na fa signé librement ak club bi di Brighton waa Chelsea dañoo intéressé wu si doomu Sénégal bi mu ngi toll si 35 millions de dollars te waa Chelsea pare ca Jamel Bakayoko dina jóge si club bi di Chelsea librement contrat am dafa jeex kon euh, gannaaw naka bi nga xam ne dellu si woon na si club dina jóge nag si club bi di euh, Chelsea fekk nag contrat am jeex na ko ñaari doomu Sénégal yi di euh, Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy fu mu toll nii nag ñu ngi gën di jege foofu sa Arabie Saoudite kii di Kalidou Koulibaly club bi di Al Hilal nekk foofu sa Arabie Saoudite moo ko bëgg a Al Ahly bu Arabie Saoudite ñoom ñoo bëgg a recruter gardien Sénégal bi di Edouard Mendy ba fu mu toll nii nag euh, négociation yi tàmbali William Carvalho nekk nekk si euh, négociation club euh, américain bi contrat wu ñaari at mu ngi fay xaar. France dañuy jàll kii di Julian Nagelsmann xamal na waa Paris Saint-Germain ne doonoon seen entraîneur pour saison bi di ñëw kon na dàkk na. offre yi nga xam ne nag waa Paris moom lañ koo defaloon Thiago Motta mi nga xam ne nekkoon na joueur foofu sa Paris Italie nekk tam entraîneur club bi di yabu foofu sa Italie fu mu toll nii nag gën a jéego ba waxtaan ba dégg mi waajam si diggante Gallardo ak Olympique de Marseille ngir nag mu doon seen entraîneur Olympique de Marseille dañoo bëgg a recruter joueur bi di euh, Romain Saïs di euh, doomu Maroc transfert bi ñu koy xayma si 4 officiel Mouhamadou Mouhamadou Diawara signé na ak club bi di Olympique de Lyon ba 2027 Italie la ñuy jàll Chris Smalling prolongé na contrat ak euh, AS Rome Napoli dugg nañ si euh, négociation yi ngir naka mën a am kii di euh, Gabi Vega nekk milieu terrain si club bi di Celta Vigo bi nga xam ne nag club yu bëri soxla nañ ko waaye nag Napoli fu mu toll nii nag waxtaan yi commencé naa sori si digganteem ak ñoom ak Gabi Vega doomu Sénégal bi di Boulaye Dia club bi di Lazio de Rome moo ko soxla kon Boulaye Dia Villarreal moo ko waaye ñu ko abale si euh, club bi di Salernitana foofu sa Italie fu mu nag euh, club bi di euh, Lazio de Rome ñoo ko bëgg a signé am na yeneen club yu bëri ko soxla. AS Pikine ñoo annoncé transfert officiel seen gardien bi di Landing Mbadji si club bi di Aris Limassol nekk foofu sa première division championnat Chypre. keneen ki waaj a def transfert muy doomu Gambie bi di Mohamed Savané nekk si club bi di Teungueth FC club bi di West Ham nekk foofu sa ñoo ko bëgg a te négociation yi tàmbali championnat Sénégal Ligue de 23e journée yi tàmbali na démb Thiès moo door a Kër benn bal si dara dugg door a Amitié ñett bal si benn tey jii nii si samedi bi ah, tey jii nii si dimanche bi su si 17 jotee wàlli suba si yàlla bi 17h Mbour Petite dina am Majel bi Rufisque Ligue bi 22e journée yi tey lay tàmbali su 17h jotee jàmbaar dina dalal AS Douane AS Pikine dalal Jaraaf Linguère bu saint am Stade de Mbour am Cneps Excellence Casa Sport Teungueth FC lay am Génération Foot am Guédiawaye di suba su 17h jotee Dakar Sacré-Cœur dina am Sonacos ñu jeexale ak euh, juróomeelu journée championnat. Euh, juróomeelu journée match éliminatoire coupe d'Afrique 2024 bu war am foofu sa Côte d'Ivoire Sénégal dafa def match nul ak Bénin kon Sénégal gannaaw bu fekk jidee bu fekk jiwee waa Bénin foofu sa Cotonou dañoo mujjee def match nul foofu la yemale xibaar yi di leen jox dig daje beneen yoon seen xibaar di leen ñaan ngeen demee activer ko notification pour jot information